dugal but ngay attaquant nga dugal but ma supporter la mais lan lañ tegee attaquant si terrain pour muy dugal waaw attaquant kay boo ko lu tax ñoom Sadio nañ ko fi kenn du gisati benn malal dem place de l'indépendance ñu koy pamti pamtee ah, mais mais ñetteelu trois mais le pouvoir rend fou le et puis il faut jamais dire que les questions sont définitivement réglées ah, keneen mën na ñëw gën a bëgg nguur ñëpp fii moom xanaa non buñ buñ il faut jamais dire jamais tout est possible avec les politiques les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain les mensonges d'hier sont des vérités d'aujourd'hui hmm. oui c'est ça la politique xanaa loolu moo tax kon Niger coup d'état bi fa gis nga te pourtant amuñu troisième pourtant seen waa seen ki fa nekkoon président deful troisième mandat looloo tax kii ñëw c'est pour te dire que xam nga yow normalement bu ñu la xàllalee nit ñëw rafetal rafetal ndono gi rafetal ndono xam nga mooy lan. mooy question boo xamante ne ñëpp dañ koy njort nga ne man non duma ma def troisième mandat basu euh, kële moo ko njëkk a def ki ki nekkoon président mhm. Niger. bi mu ko defee nga la ki ki ki ko wuutu war na am ay priorité def plus que. balaa ñu koy fekk ci ay coup d'état parce que coup d'état lan moo koy indi. lan moo c'est parce que nit ñi dañuy estimer ni ni nga bi dafay estimer ni que ni nga doxalee waroo ko doxalee. que tel ak tel ak tel et puis dëkk yooyu dafa compliqué ak d'un point de vue géopolitique par rapport à par rapport au terrorisme par rapport à au flux migratoire qui passe par le Niger pour aller en Libye les personnes qui sont captives euh, qui sont qui sont di leen utiliser des fois dans dans les mouvements dans les mouvements dans les mouvements rebelles etc etc c'est des c'est un contexte très très compliqué il faut travailler à ce que effectivement le Niger revienne à la normale parce que aussi c'est un pays euh, qui d'un point de vue démocratique jàpp naa ni sax bokk na le pré l'ancien waxuma ki ñu coup mhm. euh, président bi fi jógee bokk na bi fi nekkoon bokk na ci ñi inspiré Macky sale effectivement pour mu bañ a def troisième mandat donc yu mel non dañ ko war a consolider nit ñi dañ ci war a taxaw. mais pourquoi c'est fréquent euh, coup d'état yi en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest. waaw non non parce que effectivement. xam nga def nga naa dëkk yooyu yëpp def naa et puis je travaille sur des questions euh, de la démocratie avec les jeunes par exemple euh, j'ai travaillé avec des jeunes du Niger. j'ai travaillé avec des jeunes de la Côte d'Ivoire des jeunes du Mali du Ghana et cetera des fois ma def ay tournées yu ndaw a ndaw. Mhm. Euh, sur ces questions la mais je veux dire li xew Afrique c'est simplement gis nga li ci ëpp mooy problème yi ñu am mooy l'instrumentalisation de la justice la corruption. Mhm. la gouvernance le chômage des jeunes et cetera et cetera c'est-à-dire. une euh, la une mauvaise redistribution des ressources yooyu yëpp dafay tax effectivement nit ñi ils se disent écoute les politiques se fichent de nous ils nous ils veulent dañu bëgg a yàpp donc en fait il faut euh, tous les moyens sont bons pour les pour leur euh, pour pour arracher le pouvoir de de leurs mains. mais finalement c'est quoi la solution. pour éviter tout ça la solution mooy. avoir des institutions fortes. institutions yu dëgër. yu dëgër qui ne permettent pas aux États-Unis am na lu am na lu Joe Biden dul mën ci àdduna. dans sa gouvernance actuellement Joe Biden récemment le le FBI le CIA est allé fouiller ces pour enquêter Donald Trump président la woon. parce que les institutions sont très fortes man loolu laa gëm. bu ñu amee dafa mel ne modification constitution non non dama ne. il nous faut il faut que ñu góor góorgóorlu parce que jeexal pare guñ ci ñun loolu rek moo ñu dimbale avec aussi une masse critique forte parce que Sénégal na ko sant yàlla. Hmm. xam nga ce qui disent aussi que Macky duñ ko félicité c'est c'est c'est il a cédé à la pression. pression bi moo tax effectivement demul ci troisième mandat. son excellence Macky Sall. oui am na ñu ko wax. Mhm. am na ñu wax ni vraiment c'est parce que loolu la waroon def mais également pendant combien d'années les Sénégalais son dans les médias traditionnels comme dans les réseaux sociaux taxaw naan porter la question de la troisième candidature ba affaire bi am fu mu toll loolu aussi mooy cette masse critique forte la savoir se battre. savoir effectivement et exigeant moo tax Sénégal dëkk la boo xamante ne dafa am héritage démocratique bu am solo Sénégal ngay gis ni que li la intellectuel bi di wax ci démocratie universitaire bi di la ko wax Fatou Ndiaye mi miy jànku mi bi nekk nekk femme de ménage ou bien Baara Ñinde bi ou bien keneen keneen il peut dire de la même chose ou bien il peut même mieux apprécier l'intellectuel que la démocratie. Parce que c'est une question de bon sens. C'est ça. Yeah. Euh, mais, mais, pour, pour éviter euh, tout cela, avec bien sûr les, les, les, euh, ngi élections, nous avons le parrainage. Oui. Parrainage, nous avons adoption projet de loi récemment, ou alors nous avons vote. Oui. Fimtol ni bon recours véritablement le malal d'encourager les députés, nous, nous entreprendre pour au moins ñu mun a def li nga xam te ne mooy contrôler la constitutionnalité bu loi boobu parrainage. waaw loolu no man pour man xam nga waxu parenage boobu c'est quelque chose qui a été discuté au dialogue. Mmh. et qui a été entériné à l'Assemblée nationale. lu ñu entériné Assemblée nationale nag te gars yi d'accord ci dama jàpp ni nañ ci dox mais aussi on doit pas avoir des élections yoo xamante ne ku jóg bokk ci. kon yow pour parrainage. oui man gëm naa ni loolu lu lu baax la wala bu ñu deful sax parrainage à la limite ñu dellu ci li ñu wax parti politique moom la waroo chaque année est-ce que les partis politiques ñu ngi yóbbu seeni rapport d'activité au niveau du ministère de l'Intérieur est-ce qu'ils existent vraiment identifier parti politique yu yu waroowul ak loolu ñu ne leen yéen vous êtes des partis politiques respectueuses respectueux de la loi constituant votre parti donc yéen mën ngeen ci bokk ñeneen ñu mënu leen ci bokk parce que ne peut pas avoir mais imaginez pour six millions d'électeurs nga bëgg am plus de cinquante quatre candidats ça sert à quoi. parce que candidat yi déjà ñu déclaré rek. oui ça nous coûte de l'argent ñu nay cinquante candidats presque déclaré ku jóg rek ku jóg déclaré wu candidat c'est pas bien pour man war nañ toll foo xamante ne sax ñaar rek ñooy dem ñooy dem élection comme ni ko yeneen état mais oui parce que on est de petits pays et puis une élection ça coûte énormément à notre contribuable finalement est-ce que post président nekkul lu ñu soofantal si réew mu Sénégal non du sax post buñ soofantal ñenn ñi leer na leen ni ñu gagné mais ils veulent compter pour le prochain ils veulent compter pour le prochain régime ku ci nekk tu joues am na ñoo xamante ne s'il ne s'annonce pas xam nañu bu ñu participer il faut dinañu bu ñu participer ci élection yi du ñu gañe mais dinañ leen soxla pour un deuxième tour. kon affaire de te xel la. non peut-être affaire de positionnement la. d'accord mais est-ce mais est-ce que war na est-ce que un bon citoyen. wala quelqu'un qui aime le pays war na am taxawaay boobu c'est des questions qu'on peut se poser. kon bëgguñu dëkk bi. non dama ne est-ce que un bon bul ma wax loolu. ah déet man waxuma ah, dama la tere. sama question non il faut me faire dire ce que j'ai dit. dégg ko non man dugaluma la. non ne me fais pas dire ah, ce que je n'aime. léegi léegi malal léegi malal man.